salaamaaleykum gaa yi salaamaaleykum amaa Baldé ba ngay wax lii waroon na naa leer ne dangay wax lu la neex nga ne da ngaa gis Modou rek fa Modou Lo da koy gis di ko xeeb Modou Lo ku ko dàq bëree Sénégal amul leneen li ci tegu mooy yow Ama Baldé da war a jàngiwaat bëri bu baax xam nga lu tax ma wax la ko parce que boo xamoon Modou Lo yàgg a seetaan Modou xam Modou Lo ni mu mënee bëree doo ko mboot ba mu sampee tànk yi def nii samp ñaari loxo yi bul ko mboot da nga koo waroon a wër doo ba am neneen noo ko def mais du mboot mboot bi moo la suul boo xamoon Modou di bëre nga koy mboot Modou Lo lay def yow nga koy mboot xanaa doo seetaan Modou Lo yow sa bëre des na amaa Baldé damal jàng bëre beneen bi ci des mooy yow ak Modou Lo li leen wutale dafa bëri xoolal kanamu Modou gi leer gi muy génnee ak yow bu la caméra yu zoomé ni ngay ñàngee man na gaynde gu mag yaatu xoolal Modou Lo dafa leer naññ barki Serigne Babacar Si yow juróom-ñeenti butéeli euh, euh, cinq cent quatre-vingt-douze mille butéelu saafara ñeent fukki téeméer ak ñett ay reen juróom-ñetti fukk juróom-benn ci ay sunguf quarante poisson pison trente deux kaña ah lu ne nga indi ko ci làmb ji Modou Lo takkul Modou Lo amul dara lu mu def ci yaram bi ngemb li sempul la dara doon wan ne la maa la dàq bëre te yàlla rek moo fi nekk Modou Lo li mu def ci làmb ji mosuma ko gis dalaa boole yow ak sa gàllaaj yeeg se yooyu yëpp la boole di la ko rokkos bëm Modou moo soxor mel na kuy wal tege dege bëm bëm moo tax sa fans yi dugg di sot di atte parce que dala doon ray Modou moo tax xeex ci làmb ji gis ka fi mu la kor dala doon wal yow tuuti bu ñu bàyyi woon dix rek tege dege ngay doon ah wala wala wala naajo nii la loo doon def bëm bëm bëm Modou yaa soxor danga koo dóor ba gaa yi di sot di dugg ci biir yaa mën a bëre lii nii la ma leeree woon sëriñ yi doon duul nag naan warabul kax baag mën euh, Ama day daan mën loo wax yéen ñëpp tëj naa seen giñum man du ma waxantu man du ma waxantu ay mbër patriote la euh, Ama Baldé laa doon topp mais léegi ah Modou laa doon topp mais léegi maa ngi ci Ama Baldé parce que mooy mbëru patriote bi lamb ji du politique du Macky Sall ak Ousmane Sonko Ama Baldé la Euh, Modou Lo la ak Parcelles te waa Parcelles ñàkk ñu fayda même bu dee topp Ousmane Sonko du ndam dafa neex te Modou Lo day tiitaroo euh, Parcelles ku ne fa nga dëkk nga am barke alxuraan karim même Ousmane Sonko bu doon bëreeg Modou Lo waa Parcelles bu nekkee patriote dañuy faral Modou Lo ba làmb ji jeex ñu focus ci 2024 lii man maa leen ko wax. sa tët tët tët tët Modou yaa mën a bëri. Modou Lo yaa mën a bëre seen wax dafa bëri ku toog ci tele yi di tarar yi waaw di yuuxu nangam Modou Lo di ngeen koy gis di ko xeeb ku ko dàq bëri ci làmb ci amul da leen a mën da ko da ko doon rey da dóora dóora dóora dóora ba ngeen dugg di sot mosumaa gis lii ba mu juddoo ba tey Modou du nit Ama Baldé war ngaa jàngiwaat bëri sa bëri des na lu bëri waaw borom karaw yi nga dagg seen karaw yi nag watu loolu leen nel te daanoo damaa xamul nan la ñuy def ñoom ba waxtaan ak yow ba nga delloo si waat seen karaw ak borom rasta yooyu nga tiim jëlee lañ set di ko wat nii nooy def ba joxaat leen seen i karaw ndax ndel bi mënuñ cee dëkk ndax daanu nga ba pare karaw lañ soxla ñoom wasalaam